wasaya wa jinna wa seytaane wal balaay mahal balaay wa mahal amraadi wa wirida tanxaalil amraadi asalaamaaleykum mbokki julli mbokki taalibe yi mbokki bàyyi xel seen télévision Lamp Fall di dellu di am mbégte bu baax a baax a baax del siwaat ci seen jotaay bi ñu tudda Jazbul Murid ñu ci waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall baayu muridin di ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh Ibra yal nañ ci dajee ngërëmam saayir ak baatin di santaat baax ak doole ziar Cheikh Sidil di ñaan sama borom yàggal ko fi te mooy ko ak wér ba yéenam ci liggéeyal Serigne Touba lépp sama borom kàttanal ko moom def ci lu kare njortam di ziar baax ak ñaan Serigne Cheikh Jëmu Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sama borom kàttanal ko ba yéeneem ci liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall na ko sama borom kàttanal ba mu def ci lu kare di ziar baax mbooleem mbokki julit yépp ak mbokki taalibe yépp di ñaan ci barki sëñ Touba li ñuy topp ci jotaay bi yàlla nañ ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall tey nag di santaat bu baax a baax Seydina ngir séq ak sunu jotaay tey gan yu tedd yi defe naa Baye Sylla Baye fal moom kenn ko présenté ci daara ji. yàgg na fi Baye Serigne Sylla Baye Fall. Euh, waaye sëñ Abdoulaye Diop Bichri itam di koo xamante ni bii ñëpp ràññee nañ ko muy liggéey liggéey bu am solo ci yoonu murit mm-hmm. di waxtaane Serigne Touba waaye tamit du koo xam ne it euh, dundam ak léppam de koo jëmale ci maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine ndax looloo ñu boole ak moom yu fas yéene tey seq jotaay mook Baye Serigne Sera Baye Fall ñu fas yéene waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall ak ab liggéeyam waaye maam Cheikh ak digganteem ak sëriñ bi waaye waxtaane yi tamit tam nag ci bis yu am solo yi nga xam ne danañ ko amal fii ci Ndakaaru te benn jiituwu ci bisub sëriñ Cheikh Khadim Fall moom itam nga xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci yoon wi waaye ñëpp xam nañ lim doon ci maam Ibrahima Fall ndax mën nañ ne Serigne Abdul Khadim Fall moo dox digganteem ak Serigne Mortala Fall. Mm-hmm. te defe naa ne ñooñu ku leen xam-xam ne alali maam Cheikh Ibrahima Fall lañ ndax Serigne Mortala maam Cheikh Ibrahima Fall mooy wéjuram muy ñaareelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ba pare Serigne Cheikh Ibra jëloon ko jox ko Serigne Touba mu yaral ko boppam defe naa ne ci biir waxtaan wi dana ci feeñ. waaye di ziar bu baax mboolem nag ñi nga xam ne ñuy topp waaye tamit di ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh Ibra sunu maam ju baax jooju wàcc bi liggéey muy bàyyi Serigne Ndaw mm-hmm. jur sama wayjur waaye di wayjuru Sëriñ Abdourahmane Ndaw mi liggéeyee fii ci rajo bi moom it euh, Baye Serigne yàlla na ko sama mu yokk ay leeram te taas ci barkeem te taas ñu ci barkeem muy koo xamante ne bi itam bëgg Serigne Touba ku bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall la ndax euh, doy na sëkk rek ci Abdourahmane mii fi liggéeyee firnde ci moom ndax am man mii tam nga xam ne maa ngi fii ci ci ci ci ñoom it euh, di fi yëngu ñu fi bokk di yëngu ci Serigne tubaa waaye muy koo xam ne bés bu set saa ñu ko masaan a tàggu jëm si fii daf ñuy soññ di ñu ñaanal di ñu gën a xirtal ci liggéeyu Serigne Touba dem na boo wax ne sax lim amoon yéenee liggéeyal Serigne bi ak lim am lim yàgg a sonn te xëy na gisu gisu ci boppam sax la daan wax ne gisu ci boppam sax euh, xëy na loola waaye feeñal yàlla feeñalal na ko ci ci doomam ak ay sëtam yi nga xam ne taxaw nañ ci yoon wi kon kooku ràññee ko woon na lool ñu ngi ñaan sa borom yokk ay leeram euh, dimanche bi rek la génn àddina ko doon ñaanal altine ci ndigalal ajjuma lañ ko doon ñaan ci ndigal serigne cheikh dar rahman mi nga xam moo doon serignam moom serigne abdoulahi bakki borom tërëb di ñaan saa borom yokk leen tey rafet bu baax taxawaayu lamp fall euh, ci taxawaay bi nga xam taxaw nañ ko seydina alin cuun ak mbooleem ñi muy liggéeye ndool ñëpp ci biir daara ji fii kon dañuy jox kàddu gi serigne alin badara mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan euh, ñu jox kàddu gi serigne ablaye diop bisri mu nuyoo ñu jox bay serigne silla mu nuyoo ñu doon nag tàmbali waxtaan bismillah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 mbokk safo kon seen émission Jazboul Mouride di ko teewlu kon talaata bu jot si waxtu wi si euh, radio télévision Lamp Fall am mbégte bu baax dellu si waat di ziar bu baax Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ak wér. di si ziar bu baax Serigne Cheikh Jëmb Fall mi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ak wér. waaye di ziar bu baax sunu buntu si maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Ngunda Fall di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ak wér. di la ziar baax a baax Serigne Mamour waaye di la ziar sunu waajur wu tedd woow nga xam ne moo fi bàyyi ko ni nga ko waxee di ñaan sunu borom yokk ay leeram di la ko ziar di ko ziar jëwriñ ak bu taxmanto bu wër a wër waaye di ziar si jotaay bi tàmbalee ko si Serigne Cheikh Khadim Fall ni nga ko waxee moom Serigne Khadim Fall moom Serigne Mortala faal moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak liggéey bu rëy yi nga xamante ni mu ngi koy liggéeyal maamam maam Cheikh Ibrahima Fall yal na ko sunu borom gën a kattanal ndax nag liggéey boobu moom day wane ni rek Cheikh eh, Ibra moom mooy mooy mooy mooy akub liggéey te moo ko barkeeloon mm-hmm. ndax nag bis boobu moo ko tànn di benn fan si weerub may di bis bi nga xamante ni kon bis boobu nee nañ àdduna wërngal këpp moom lañ jigle jagleel maanaam bër di feetu ñi nga xamante ni dañuy liggéey mm-hmm. kon euh, euh, suñu waxee liggéey xel yëpp dem Cheikh Ibra mu taxawal bis bu mel noonu ba nga xamante ni doon na bisub national mm-hmm. ndax fi mu ne nii gis ngeen barab bi ñu koy defatee xaju fa kon lépp sant la ba tax mu waral plateau bi di Cheikh Ibra akuk wóol akuk liggéey mm-hmm. dañ si ziar bu baax a baax suñu bàyyi Serigne Sylla Baye Fall mm-hmm. ñu meen ko bu baax a baax moom moom nee nañ dañ koy bëggee di ko safoo mm-hmm. ndax maam Cheikh Ibrahima Fall moom rek la gëm moom moom moom wax dëgg yàlla yàlla na yàgg yàlla na wér waaye sëñ Abdoulaye Diop maa ngi ko doon wax ay waxam du ko wax ba mu daanu ca tuddul Cheikh Ibrahima Fall moom ñu fonk ko lool di ko ziar bu baax a baax di ko dalal jàmm si plateau bu Lamp Fall di leen ziar bu baax si Maodo jërëjëf Seydina Alioune la ci nuyoo bu am solo boobu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 ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا مولانا ممشي إبراهيم فال باب المريدين القائل لا ينال راحة عند الله إلا بترك راحة لله ونسأل الله رحمة وعمرا طويلا لشيخنا ووسيلتنا شيخ سيدي المختار الخليفة العام لتائفة المريدية حفظه الله وأيده موكي jullit yi mbokki taalibe موكي mbokki téléspectateur yu Lamp Fall TV ci réew mi ak ci bitim réew ci gox yi feccanti ko ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam di leen wax alaykum wa rahmatullah ñu ngi jital suñu kaddu yépp nak ci sante yalla subhanahu wa taala di ñaan mu julli te sërmal ci sangu mindeef yépp sayyiduna muhammad waaye di ñaan mu no fayal te no gërëmal suñu yaakaaru tey ak ëllëg maulana cheikh mat bamba khadim rasul Ta fayal nu jàmbaari l'islam buntu yoon wi nga xam ne ku bëgg ci sëñ touba dara te jaaroo ci moom do am dara muy maam cheikh ibrahima fall babul muridin ki tooge jataayam di Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg te ànd ak wér waaye ki tooge jataayu Cheikhul Khadim Cheikh Sidil Muxtaar yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ko ñaanal njabootu islam gépp di ko ñaanal sëñ Amsatu Mbàkke ibnu Serigne Soyibu waaye di nuyu waa Lamp Fall gépp di nuyu ki nga xam ne mooy jëwriñ ji ubbi liggéey bi ba ñëpp di ci yaatal xam-xam buy wane Serigne Touba ak Cheikh Rafal di sëñ Alioune Thioune yàlla na yàlla dolli wërsëgam dolli teraangaam te guddal fanam defal ko ngërëmu Serigne Touba di leen nuyu yéen ci jataay bi nga xam ne mooy Jazbul Murid ñu koy mandargale téere bu rëy boobu nga xam bibliothèque la te maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey ko mhm. ñu ngi leen ciy siyaare sëriñ Mama Mamour Ndaw mhm. sa taxawaay di mhm. sëtu Baye seex Ndaw waaye ku nekk xam la ci bëgg maam Cheikh Rafal ak émission bu rëy bi nga koy taxawul yàlla yàlla guddal sa fan nga feggoog sa xarit sa lépp di sëriñ Alioune Badara Ndiim seen taxawaay ci maam Cheikh Rafal askan bi yépp nga koy béggee yàlla yàlla guddal seen fan wéral seen cër ñu ngi leen di béggee lool ci émission bii ngeen nu dalal waaye di ziar sunu mag mii ñu toogal muy sëriñ Silla Baye Fall mi nga xam ni léppam maam Cheikh Ibra Fall boo gisee muy dox rek nga xam ko nga bu waxee nga kontaan réew mépp di ko béggee ci xam-xamam bu rafet ak maam moom lu mu wax rek boo yemee yër téere gis ko ci mu ngi koy siyaar bu baax di ñaan fanam gudd di siyaar ki ni fi yebal nag di sëriñ Cheikh Khadim Fall mum sëriñ Khadim Fall mum sëriñ Mor Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kooku su taxawee bis bu rëy nii ci Dakar ñu war koo defee ci stade Demba Diop le premier mai àdduna bépp war nañ ko wuy si te xam ni surtout maam Cheikh Rafal taxawal na bisu maamam bi nga xam ni Dakar giseegu ful bis bu toll noonu ci Dakar moo ko taxawal kon yàlla na yàgg taxawal ñu dem ceeg jàmm te am ci ngërëmu maam Cheikh Ibra Fall nu ngi koy siyaar bu baax ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy may nopp di nu may bët di nu seetaan ci seen télévision Lamp Fall TV ñu delloo la kàddu gi suñu maam tubaarkàlla jërëjëf suñu Ablaye Diop tubaarkàlla nuyoo bi am na am na solo lool euh, Baye Sylla ñu hmm. ñu jox la kàddu nga nuyoo Baye Serigne Sylla Baye Fall tey hmm. Hmm. astaghfirullah maa ngi tuubal yàlla di ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba di wéttali koo jàmbaar ji nga xam ni mooy sunu xol. maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ni. li sëñ bi rëy rëy rëy moo nu ko joxoñ man man ko jëriñoo ku gërëm nag ki la jëriñ wala gërëm ki tax mu jëriñ la suñ maamal maa ngi bu baax nuyu suñu Aliou Badara Ndiim nuyu bis mii nga xam ni euh, li mu wax lépp ci moom la ne ba ci yéen nit lu mu dencul xamu ko lu ko seere nit maa ngi nuyu Alioune sëñ Alioune Tour borom daara ji dama koy wax ne ko ñuy jàngale alxuraan ñi nu toogal la jàngal di am seen bu yool yow monde bi àñte ngay jàngal lii du télé daara la te yiwu jàngale ko xamal li ci ne soo wutul loo dundalee mbooloo da ngay jàngale ji yàlla gën a rëy ci jaam ñi kii maye xam-xam ak kii dundal nit ba mën a régler ñu may ko xam-xam moo tax berne rëy yàlla nee ñi gën ci kaw suuf mooy ñi xam di xamle xeeti jaamu yàlla yépp berne ci gën kon moom li muy def ku fi ñëw te xam li muy def bala ngaa sant kenn di nga ko sant ndax yàlla mi ko jox daa weesu mbooloo mu bari jox ko mu téye ko ni mu ko téyee te ko ci aw yoon teg gi ci aw yoon gënal ko xaalis ndax li fi ñew ci xaalis ci walu publicité ak yeneen ak yeneen ma di ko delloo ngir bëgg ngërëmul sëñ tubaa loolu wala naa tax ku bëgg ngërëmul sëñ bi xamni ne sëñ àll wut ngërëmul bi personnel bépp maa ngi leen di nuyu di ziaré jàmbaari l'islam yi nga xam ni tax na ku fi mas nekk ku ne bu la dee fàttali ko ñaal rek lay doon wala sax ci di maxtaar dara na xel yëpp cig maandu ci jaamu yàlla cib liggéeyi cig noppi ci dund dina di nuyu talibé bu mag bi di serigne Cheikh djimou Fall di ñaan lu mu ko sant yalla nako tal man ko ba jëfi ko ne ko wenjal tam ci barkam serigne touba amin amin tawakkal euh, amna lo xamni dal ku ci yalla bolé ku ne war ngaa wit sant ko tawakkal liggéey bép bép bép baxna na waaye mboolem liggéey yi liggéey serigne touba ci gën kon buñ ci yalla xiré nar gën lu ci man mëna bayyi li ci ginnaaw jëm ci wana na sant kañ ci xiir dañuy gëm yàlla bu baax. tubaarkal la jërëjëf Baye si la Baye Fall tubaarkal la kàddu gi am na solo lool ci nuyoo bu am solo boobu te matale na eh, sëñ Ablaye Diop. Mhm. Eh, tey maam Cheikh Ibrahima Fall akub liggéeyam lañ fas yéene waxtaanee. Mhm. te defe naa ne eh, bis bi ñu dégmal si dara jiituwu ko ci. Mhm. waaye dégg naa ci sa biiri kàddu bi ngay nuyoo nga wax ne maam jàmbaar ji nga xam ne. ku am dara ci buntu kër Serigne tubaa ku jariñ ci Serigne tubaa jëmum ma tax. Mhm. muy maam Cheikh Ibrahima Fall dafa mel ne kon loolu dara jiituwu ko ci liggéey bi mu doon liggéeyal Serigne Touba. muy fexe ba ñu jariñ ci Serigne Touba. Mhm. Mhm. waaw jërëjëf Serigne Mamour jërëjëf Serigne Sylla ci nuyoo bu am solo bi mu defati jërëjëf Serigne Aliou. maam Cheikh Ibrahima Fall euh, waxoon na ni sax. kuy gërëm na ma gërëm kuy xarab na ma xarab. lu fi waay am man la. mag toog na ci wetam. mu ko yaakaar naan yoonu Serigne bàmba wi. Mhm. maam Cheikh Rafal ni ko tuub ko doom sëñ Bamba bu dee yoon fuy dëkk bi mu ni cell sëñ maam Cheikh Rafal ni ko sëriñ Bamba ab dëkk la man Ibrahima Fall maa yoom yoon wa ca jëm ku ma teggi doo dem ci sëriñ Touba kon nit mën am mhm. la muy wut te jaarul ci bunt te defe naa ñoo ne woon mooy baabul muridiin mhm. te baabul muridiin googu am na ku mu metti woon ci mag ñi yaakaar sëñ Touba xolam nangu ko woon mu sol dàllam dem seeti sëriñ Touba ba mu ñëwee da ko denc ci xolam waaye bi sering bi dafa ni tekk ba mu yàgg mu ne ko ibrahima jàmbaar la ba tey nanguwut mu jàpp ne yonent yàlla ibrahima alayhi salaam la sëñ bi jublu ci wax mu ni waaw ko yàlla ni wa taxasallah ibrahima xalilan kay ci alxuraan jàmbaar la sëriñ tuubaa ni ko bul gaawtu waxuma ibrahima moom sama ibrahima fall mii ci kër gi laa wax jàmbaar la ni ko dafa am loo xam man ahmadou bamba dama lijjanti ba gis ko ma jàppoon ni mindeef dootu mën a lijjanti ba gis ko fi ko gisee Ibrahima Fall mii ci sama kër gi liggéente ba gis ko fi ma ko gisee bi ma ko gisee ma ñam ko jàppoon ni ku ko ñam dina neex ba doo ko mën a reeteet keneen di ci jëfandiku mu fexe ba mus ko waaye jéebaane ko ba yéen ñëpp ngeen jariñu ci loo tax muy sunu baabul muridi kon yoon wi ku am dara ku nekk boo goree war nga ne jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall waxatuma la yoonu murit waaye lislaam laa la wax ku ci am dara war nga ne jërëjëf maam Cheikh Rafal hmm. ndax ci sa biir kër na lu ñu lay defal loo xam mënoo koo ñàkk te maam Cheikh Rafal la njëkk a wane muy yoonu tarbiya suñu delloo ci gàttal ci taarixam ndax xam naa ni gane àdduna gi day jël temps ci diggante njab yi ak wàq yi ci ture aatimaan yooyu yëpp day jël temps mu ñëw fi 1855 sëñ Touba ama sara la ñëw muy 1270 ci gàddaay gi suñ ko indee ci atum calendrier bi ñuy jëfandikoo 1852 la ñëw moom da naa ama sara en jin la maam Cheikh Rafal ñëw ndax ñetti at la ko Seexul Xadiim màggee ci zaahir ñetti at la ko jiitoo biir 75 ans le Serigne Touba dund 75 ans le Mam Cheikh Ibrahima Fall dund. seen dunda yem képp. bët li ci wéx ak liy ñuul rek am. liy weex mooy seexul li ci ñuul Mam Cheikh Ibrahima Fall. jalal ak jamal dong mës di ànd. yàlla lu mu sak ci père la ko def ñaar rekay and jëm lo tedd tedd am ko lay wane te sëñ Touba mënta wane bopam ki taxaw jéebaane ko ni gaa yi kii la ba ñepp xamni ki la kooku kooku am dara ci Serigne Touba ta gor te santoo ko goré wo kérok bi ne Serigne Touba dem ci géej dafa am ñu ñëw ni ko lépp ak yawa faal yaa ko jay def ko lu nekk ba yóbbu nañ ko ci géej gi mu ni ah doom nu ngeen ko xamee wax ngeen dëgg lépp ak mana a daal ni mbir ku ci dugg ragal ci tuuma ak gàcce su yeboo nga bàyyi doo ci am ndam lii may defal sëñ Bàmba ragaluma ci tuuma ragaluma ci gàcce ne lu na dégg naa ko tey bi mu mettee ñëpp dawal yërmande nee ñu lépp ak man a mm-hmm. waaye jamono gi ñëw bunt yi dina ubbi làmp yi tàkk ñëpp riir wuti sëriñ Tuubaa su boobaa nañ taxawaat ni lépp ak mën a doom dina leen metti du ngeen ko mën a faj lépp man lay doom oh, keroog bi xaadim rasul amee ndamal islam indil ko l'islam bépp mhm. yàlla gërëme ko ci sóotul fat yi mhm. ci tontub sëriñ Mouhamadul Bachir keroog bi sëñ Tuubaa ne tëll Baay Faal yaakaar maam Cheikh Ibra Fall dañoo door ngiin ya mhm. ni ko lépp ak yow a Fall mu ni man ak sëñ Bamba baat biñ ma xase woon démb ci lañ ma tagge tey te maanaa bi soppeeku démb lépp ak mana bi mu mettee tey bi mu neexee lépp ak mana kon tey lépp dee moom كوي تامبلي تامبلي واتي ما امو دارك سيرين ما بسيخ إبراهيم فعل مو اندي سيفلزاسيون تي يونو موريت يونو موريت امنا في تا سيفلزاسيون امو الإسلام امون نفي تا سيفلزاسيون امو تي بودو دي لوتي القرآن الكريم كي سارم يوخ سوت الحجرات يالا دفا قي ني جوليت ني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقول الله إن الله سميع عليم أي ين وي damay tere man yàlla ngeen jiitu rasulullah ci benn décision su dee dox jàll leen ci ginnaawam su dee wax déglu leen ko su joxee décision gaaw leen def ko kon booba l'islam amoon na fi waaye yàlla daa koy wàcc directive bi door koo def loolu civilisation la tudd mu xëyaat ni yaa ayyuha allazina amanu laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabii wala tajharu lahu bil qawli ka jëhri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yéen yéen way gëm ñi damay tere seen baat féete kaw baatu rasulullah suy wax ni ngeen ni tekk kuy wax ak moom nga wàcce sa baat su ngeen toogee da ngeen ko wagar ndax kii kat moo gën ci mindee fii man yàlla moom rek la ay xool loolu su amee kër sëñ Touba jërëjëf maam Cheikh Rafal lan war a wax yàlla waxaat ci suutul ahzab yaa ayyuha allazina amanu laa tadxulu buyuta nabi ila an yuzana lakum ila taamin gayra nazirina inaahu walakin iza duitum fadxulu fa iza taimtum fantasiru wala mustanisina li hadisin ndax inna zalika kaana yusi nabia fa yastahi minkum waaye wallahu la yastahi min alxaq kon fa isa saaltum mataan fasulu fasuluhunna min wara ijabin ni zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an ta'zu rasulallahi wala an tankihu azwaju min ba'di abadan inna zalikum kana inda allahi aziman loolu alquran da ko wax yéen jullit ñi bu Moustapha toogatee ci biir néegam bu leen ko ñooxu dugg ci biir néeg bi di ko déranger ndax dafa bari kersa du leen ko wax waaye man yàlla mi xam lépp xàmmee ko te xam ni mooy seen sànq maa leen yemloo ci biti su toogee na leen invité ci ñam ngeen am droit dugg su ngeen duggee ñam bi na nekk ñam wu sedd bu nekkee wu tàng lool day tax ngeen jël temps di upp toog ba ngeen fay toog da ngeen koy lor dafa bari keeso du leen ko wax man yàlla rusuma wax kenn dëgg ki leen gën di seen sànq mooy Moustapha ni ngeen ko wagar te dànd ko bu leen ko ñuux maam Cheikh Rafal bi mu ñëwee sëriñ daam Lo moo wax ni maam Cheikh Ibra Fall moo yaraat daara jëpp loolu sëñ Tamba ko seere ndax nee na fekkoon na fi ñuy jàng ak di bindu sëñ Touba bu xëyee suba teel day fëgg ñëpp ni ñëw leen tari looloo xewoon waaye maam Cheikh Ibra Fall moo ñëw ni sëriñ Touba li nga yor jox ko jaam ñi jàng kese du ko maye nanu bàyyi lii nuy def te ñëw wàggar la liggéeyal la ñu jariñu àdduna ak àllaaxira sëñ Tamba ko seere loolu keroog bi mu wàccee liggéey mm-hmm. ak keroog bi nga xamee ni sëriñ Modou mu sëñ Modou Fat Modou Fatma Fall mi mhm. nga xam ni mook maam Cheikh Ibrahima Fall ay doomi bàyyi lanu mhm. ndax ki jur maam Cheikh Ibrahima Fall jur a bokk lépp keroog ba mu wàccee liggéey sëriñ Ndaam seere na ca loola mhm. sëriñ Ahmadou Diaw Paxa ku nekk xam na ni sultaanul aarifin lañ ko tudde nee na maa yor drapeau ñi xam yàlla ba noppi maa yor seen drapeau jiitu leen kër sëriñ Touba ci mag ñi la bokk moo wax ni li ma julli baax na li ma koor baax na li ma natt asaka baax na li ma liggéeyal sëñ Tuubaa lépp a baax waaye li ma gën a dal ci sama euh, xol gën a dal ci sama xel ma gën koo yaakaar mu gën a xàmme mu ci man ca bis pénc ba mooy Ibrahima Fall jàmbaar jii ni sama xarita keroog ba mu ko waxee maam Seex maam Seex dane ko duñ ci yem doom dinaa la gunge ba buntu kër àjjana ñu door a tàqali ko kon yoon wi nit mënu cee am dara te woo maam Seex Ibrahima Fall te dafa waxoon ni ba Abdoulaye tukki fu Sëriñ Bamba sampati mbër ma samp mbër ci wet ta lolu boko setlo da fay melni Serigne Touba juróomi khalifa la fi am ci domam mam Cheikh Ibrahima Fall juróomi khalifa la am ci domam Serigne Mouhamadoul mustapha njëkk togal Serigne Touba 1927 la tok 19 juillet bi Serigne Touba wàccee liggéey dem ñibi Touba tok fi ba 1945 muy 18 ans Serigne fallu jël tok 45 ba 68 di ñaaral bi khalifa Serigne Touba bi mu wàccee liggéey Serigne abdullah Ahad jël 68 ba 89 sëñ Abdul Qadir jël 11 mois dugg 90. jox Serigne Saliou mu uuf jamono jëpp ba 2007 mu quitté ñu doomi sëñ Touba gisatul ko. muy juróomi xalifa. maam Cheikh Ibrahima Fall wàcc ci liggéey 3 mai 1930 75 ans Serigne Touba da koo jël léppam. kana jël Serigne Modou Moustapha Fall taawam. 1930 ba 1950 di premier xalifaam. mu wàcc ci liggéey Serigne Mortala Fall jël mi nga xam mooy maami jëmm jii nga xam mooy taxawal bis bu bii ci Ndakaaru. moo jël 1950 ba 54 ñeenti at la toogal maam Cheikh Ibra Fall mu wàcc ci liggéey sëñ Ablaye Fall Ndar jël 54 ba 1975 muy 21 ans la toog mu wàcc ci liggéey jox Serigne Serif Assane Fall Naaru Kawsara mu toog 75 ba 80 ñoo dëkkoon fee ci Géejawaay mu wàcc liggéey liggéey 80 jox sëñ Abdou Sakour bàyyi sakk jël 80 ba 84 doomi maam Cheikh Ibra Fall jeex ñu songu sët kële jël ñaari seex kii jël ñaari seex ñaari mëbadu kii jël ñaari seex kële Mouhamadou Lamine Baara la jël ah, ak Mouhamadou Fallilou Fall kii jël Mouhamed kii jël Mouhamed kii jëlaat seex kii jël seex sëriñ seex jëmb Fall sañ seex Sidil Muxtaar kon la mu waxoon sëñ Tuubaa fu mu samp mbër ma samp mbër ba addunay tukki war na noo bàyyi xel ka day maam Cheikh Ibrahima Fall te yoon wi tamit lépp mooma wilaayaa ma njëkk a feeñ sëñ ab sëriñ Cheikh Samba Jaara Mbay ku ko ku ko raw ci way xawma ko mu سيدي عبد الكريم دا فا جيخال فنوني واي تا غودول فان 48 لا دوند ناخ 1869 لا غاني ادنا 1917 لا ген ادنا 48 لا دوند سيرن توبا وان نكو جوغي نو اورول اينيتي واتيغول ليغي واي نا سيرن توبا سي بهرو بو خام كين موسوكو تاي واي واخنا لو نيك شيخ الخديم limi way mam cheikh ibrahim fall ci yaram bi nam fall dañ ne ko lak wilayatun bayna nasi zahiratan sak walli yu ñëk feñ yaram bi nam fall kon kuy jaay wilaaya rek ci maam Seex Faal nga xoroy moo njëkk a feeñ laka wilaayatul la ko wax ñeel la la ak wilaaya zaayidatul gu ne fang ñëpp teg ci bët ni ko sag wàll yoo njëkk a feeñ yaaram bi naam Faal ni ko ëhlal ëhlul hawaaiji jaa u laazimina laazimina bukaa fi yow ku ñibbi di ree yaaram bi naam Faal borom aajo yëpp daan ñëw ci yow bu ñuy ñëw di jooy ku génn ci yow maam Seex Faal jox la loxo bu ñibbee aajoom faju muy reetaan kon kooku mooy buntu yoon wi alquran nak moo ni wa atul buyuta min abwabiha na ngeen di dugg ci kër ya ci néeg ya di jaar ci seeni buntu serigne sëriñ Tuubaa mën ta am dara ci mom ta jaaru ci mam Cheikh Ibrahima Fall Babul mouride muy léppam dama lay jox ba ci kanam ñu wat ci ma gën ko leral ci ay firnda yo xamni ne fekk ci mam Cheikh Rafal kër Sëriñ Tuubaa moom koy buñ dellusiwaatee sax bëgg na nga gëna xoof ci Cheikh Samba jaara waaw ndax dafa melni dess na lu bëré bëree bëri loo xam ne wax nako Cheikh ibrahim te wooyu dafa melni moy dundung mam Cheikh ibrahim Fall mooy waxi Cheikh Samba Diarra yooyu eh, waaye lu am solo eh, Seydina Ali eh, wala ñu lu am solo ci maam Cheikh Ibrahima Fall defe naa yow ñëpp war a dégg mm-hmm. li mu wax ni yëpp li muy dëggal mooy li naan Serigne Touba ak Cheikh Ibra du ñaar kenn ke ndax soo xoolee seen dund gi lépp dafa dëppoo mm-hmm. kon nag bu ñu buñ ne Serigne Touba mooy ki jërëjëfal mm-hmm. Cheikh Ibra mooy ki jara am ci lii da koy wane bu baax 75 ans quinze ans. Mhm. mu doon ñaari dund yoo xamante ni dëppoo na. Mhm. li leen fi wuuti ñoo ko gis. waaye bu fekkente ni yoon wi. Mhm. li naan bu doon bu doon sëygu sëygu tas la. Cheikh Ibra la ñuy laaj can. Ah, kon Cheikh Ibra mooy yoonu murit. loolu du noppi di koy wax saa su ne. waaye euh, civilisation am. tudd na ko sànq. ndax Cheikh Ibra aspect baatin bi sax léeg-léeg bu ñu neexee mun nañ see bañ a bañ a bañ a dugg ndax. zaahir si rek soo ko jàppee xam ni Cheikh Ibra kenn xamul lu mu doon maanaam ku nite la mën a jaxasoo ku mën di doon ki gëm ak ki gëmul ki mu bokkal yoon we ku mu bokkalul yoon ba ñi nga xamante ne dañoo jàpp ni sax yoruñu diine Mm-hmm. te lu feeñ na ci nekkin nekkinam biir ndar mm-hmm. ndax xam nga sëñ Abdoulaye Diop da wax lu am solo muy wàllu civilisation Cheikh Ibra mm-hmm. eh, eh, ak niteem imagine ndar jamono jooju sëñ Tuubaa di ko fa yebal jamono jooju ndar mooy capital de l'AOF Afrique occidentale française maanaam Afrique sowu jant ñoom ñëpp ndar moo leen coiffé woon ñi coiffé ki waa coiffé woon ndar fi la nekk maanaam bu ñuy wax maanaam wàllub ñu ñu jàpp ni si wàlluk diine ñoo gën a rafet xam-xam en tout si ñu jàpp ni ñi gën a nite gën a siluise maanaam si wàllu jëmm mhm. ndar lañ nekk mhm. mu jël maam Cheikh Ibrahima Fall maanaam yabal ko fo mhm. waaye ba mu demee nu mu mujjee daf leen a daf leen a inculqué ay valeur am ay valeur am la leen mujj jox ba yaakaar naa ndar dañ ko doon seetaan ba si tubaab bi tubaab yi ñu jàppoon ni xëy na eh, dañoo ñëwoon pour noot ñu jàppoon ni noonu gënoon a yew ak yeneen yi demee doonte dañoo juumoon dañoo mujj jaxasox moom ba yaakaar naa ni way nañ ko si lu bari ku dem si euh, euh, Cheikh Amadou Bamba face aux autorités coloniales bi ñu Omar Ba defal ñoom Paul euh, Marty nga bu baax a baax niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko en tout cas niñ ko niñ ko décrire mu doonoon ku mat si jëmm doonoon ku mat si jikkoo waaye xoolal ñi ko suñu borom boole loon si njaboot doon ñi nga xamante ni ñooy buur yi ñi jàppoon xëy na jamono jooju ñu doon wax borom yàq wu rëy gënoon rëy juddu yaakaar naa ne ku si nekk sak njaboot lañ ko mujj jox ngir mu am ak ñoom wala mu mu mu jaar ak ñoom foo xamante ni Cheikh Ibra rek moom moo si luuse xëy na bu si kanamee dinañ mën a duggaat bu baax a baax si Cheikh Ibra ak ko ndax de jëm na si liggéeyal Serigne Touba waaye jëm na si liggéeyal askan yëpp ca loolu leer na ca loolu yëpp mun nañ ko tamit basé waat si zaahir si nga xam ne Cheikh Ibra kenn du moom parce que tubaarkal si naa leen am na solo dañu bàyyi Serigne si la sax bàyyi Fall moom Euh, ndax daanaka boo dee seet fi sëñ Ablaye Diop euh, bàyyee te lu am solo sax la wax ci biir wax ji mooy juróom-ñaar fukk ak juróom yëpp muy 75 ans yëpp Cheikh Ibra Fall mook Serigne Touba ñoo ko nuróo uh-huh. te ci lépp itam dem na ba ci njaboot gi sax uh-huh. ndax kii euh, juróomi doom la fi la fi la ko fi moo ko fi wutu kee juróom a ko fi wutu kii uh-huh. ñaari sët kii ñaari sët kon ñoo nuróo ci lépp waaye juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu muy 75 ans yooyu Cheikh Ibra mosu cee deñ di liggéeyal Serigne Touba ndax wax nañ ne bis ba mujjee ca ngasum raay ma uh-huh. bisub talaata la uh-huh. te wax nañ ne bu mu teel se la làqu ba fi mu ne sax wàccul uh-huh. waaw dafa waxam ni Serigne Bamba kenn du ko liggéeyal di wàcc da ngay aw liggéeyin daay wax ne damay liggéeyal Serigne Bamba ba tëdd sama xablu di ko liggéeyal ba fi mu ne nii ay 9 millions 10 millions la xëblu biy génne ñu ko jox Cheikh Sidi Maxtaar Cheikh la wàccagul. kon ku defee ne war ngaa wàcc. Hmm. <laughs> sam tax da ngaa foog ni sam danoo foog ni seenum taxaw doy na fooy lobb li xam te boo fa xisee lobb dootoo taxani sab lobb wër te gaaw a doy de. dëgg dëgg. li ñuy xam ba ëllëg fii leen koy taxane te ku taxunul ba dem dootoo taxan kon loolu lobb war nga ko xeeb. dund gi niroo xalifa yi niroo xol yi niroo bëgg gi niroo dañuy kenn dun ñaar sëñ tubaa ak Seex Ibra du nit ay leer la yàlla nag bu nu bëggee dimbali si fam ne daa sori faaw mu defi tànn sulaat fam mbiram def ko ci ci nit fekk nit ki daa taxaw taxawaayum nit te yorul nit yorul ci lañuy jaa jëriñu damay wax ni yàlla mi ngi gaawee ci sëriñ Tuubaa Cheikh lofal amna bay na bàyyi xam kenn xamu ko yàllaa ngi fi won Cheikh Issa jenn amna bay yalla yàllaa ngi fi won seigne Mbaye sar amna bay yalla ngi fi won seigne Jilal Tafsir ak seigne ma ak seigne ma ñepp amani bay wala ñom ñu ak seigne bi dañu mëdd seeni bay seigne Tuubaa moy loxol yalla ci ko suuf diko dem mani goor ak jigéen buñ jaxaso ba doom juddu ci moy ñu yalla dañu toñ yalla te buñ tuubee dootu lu ko def mu nexé ken tooñ mu jéggal leen xam nga moy yalla moy moy sa borom jëmono ku la jox nag Cheikh Ahmed Tidiane Sëri ca Faas ca jamonoom weddi ko Mouhamed nga weddi te ku weddi Mouhamed yàlla nga weddi boo dajee ak Abdou Khadir Jilani ca Bagdad weddi ko Moustapha nga weddi te Moustapha ku ko weddi yàlla nga weddi boo dajee ak sëñ Bamba jamono jii weddi ko Moustapha nga weddi te Moustapha ku ko weddi yàlla nga weddi mooy sa borom jamono mooy mooy yàlla bokkut ak tooñ yàlla xanaa xamuñu bàkkaar yi bi ci gën a rëy mooy weddi sa borom jamono yiw yi gën a mooy nungul sa borom jamono Moussa Ka waliyu la dafa wax ni sëñ Bamba du nit du jinne du malaayika du kaa inaati laahi te du Moussa Ka sëñ Baye Jaxate tontu ko ñaari waliyu la nu gise wunu ni sëriñ Tuubaa niru nga yàlla aw defin niru nga yonent bi aw doxin deesu la xam deesu la min yàlla nga ñuy niru nit ku fi nekk di lenkaar mbirum sëñ bi sëñ Baye Jaxate la raw moo la gën sëñ Moussa Ka la raw moo la gën ndax sëñ Bamba lu gën a jege gën a gën fi mu ne sunuy maama gën sunuy bàyyi sunuy bàyyi nu gën ñoo gën sunuy doom lu gën di sori buum gi gën di sax ba keroog dagg àddina tukki xam nga na muy demee yow mu am téeméeri nag am teen bu dul jeex am juróomi pour ñu mën a sàmm ñax mi bari na ci àll bi nag di fori di fori li ñëw ngay bëgg tuur ñuy naan ñu dem ba yàgg nag yi jur ba mat ñaari téeméeri nag teen bi jeexul pël yi sonn nu ñax bi jeexunu soo bëggee ñuy naan da ngay wuti goj bu yees poli bu yees baag bu yees boo bëggee tuur ñu naan téeméeri at yu ne liy xew ci lislaam bu téeméeri at yi dee daanu ña ko doon xewal dañuy daanu ba jeex boo gisee sëñ saali wu rëy wax ni dama yeesal yoon wi yoon wi dafa màggatan bi sëñ Abdou Khadir demee xotti ko xumaag beey sëñ Tuubaa del si ci sëñ saali wu mu ne cëpp dama yeesal yoonu murit ni sëñ Tuubaa yees la woon sunna si yonente bi du ma ko noppi di wax de ñu ne tekk bu ñu jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Bàmba daan def ci mag ñi bo mag ñi la delloo si mm-hmm. ndax téeméer at yi fekk juróom ñetti fekk fukki at ak juróom loo gis ci nit sëñ Saliou dongoom yi gën a tuut ci dongo yi mokkal alxuraan juróom ñeenti mm-hmm. fukki at ak juróom ñu taf si ñaar fukki at ñoom ngërëm bala ñoo dee bay jeex xarnu bi coupé <laughs> bu àddina wërta tukki caatam seigne murtala wala mu seigne Sohaybu wala mu seigne abdoulat mo na mu xéet tolli Cheikh Sidi mi yes la 100 ans téeméeraat yu ne xal la xala xamu ne jamono jongama la mu jadd bi koy waddu defal ko modib seureum sërëm jongama lu rafet rafet bu wëdduwul du genn ba bu genné yuux bari la mu jadd ab seur la bu demee ko ko doon aw ñambas la aw ñambas du reuy ba daw seur sëñ tuba dalib sër am yenti ñambas ci sëñ abdou khadi del si lib sër ci sëñ saliou am na ñaari ñambas alaaji barak cheikh sidi makhtar premier xalifa nag day bari doole xam nga lu tax sër bu béyee tuuti nga plan ko muy sir bu rabal nal ko bu ko ponkal woddoo dox wut si la da nga sër bi sër bu yees la fekk ñambaas waa teel a <laughs> ma bëgg ñu xam ni ku fàtte wala la fal doo folleeku may wax ni gilem sukkal na ay ngaax waa nga ko da ko bëgg a yëkkati giléem goo gis mu waf buuf ci ay ay ay ngaax daa bëgg ñu teg ko ci kaw mu fitteeg moom loo jóor giléem mu jóg fitteeg moom giléem a ko gën a diis xanaa xamu ni ku ni fàng koo wan ñu gis ko Cheikh Ibrahima ak sëñ Tuba sëñ Tuba doomi sox dala wan taxul woon ñu ëwalee lool mm-hmm. ndax sëñ Bamba bi muy waaj a feeñ ci Mbàkke Cheikh Omar Fuuti wàllu yu mag wa la ko suñ borom déey mm-hmm. ne ko doonay rasulullahi dina feeñ Mbàkke mu xeeb Mbàkke dem Màkka ba mu ba màkk dox ñu ko waxuñu la màkk mbàkke lan la wax mu del si mbàkke wisit ko ba xam ni fii le joxe fi ab téere ni bu ak na ngeen ma ko joxal sëñ Tuubaa ñëw ba mën na nangu téere jox ko téere bi sëñ Tuubaa dem ba war a wootee Cheikh Fall bi dara ni waayaa ngi moo tax Cheikh la Fall ak Cheikh Omar Fouti yu ñoo gën a fisug wàllu yu ci réew mi xanaa xamul ñii ñu ñuy wàllu yu du ñuy wàllu yu ay saalihiina yu ragal yàlla di di jaamu rek la noonu. waaw dëgg la wàllu yu bët la. xol la xel la gis-gis la. manoore la sañ-sañ la. kon na ni wàllu yu la nga ràmm ko muy dëgg xaritub yàlla sekkare ba toll Serigne Bamba yàlla da ko sàkk muy ràmmum bindeef yi di ko nëbbu xaritam. moo tax mu Kane bi lambi Serigne bu tëggee kuy wàllu yu wàlli nga ku wàlliwul man mii maa ca teg ni ku wàlliwul doo wàlliyu. Hmm. Sëñ Tuubaa nii ma yàlla melal ku mu neexul. loolu la ñuy fi ci yàlla boo demee fi moom doo ko doon ñun ko lu tax mu ne ñuy dem ci yàlla ñëpp a ma xam ndax chef bi leen tax di rajal ñu yëkki kuy bu ñëwee a cay toog amul benn ministre bu xamul Macky Sall benn ministre bu xamul Macky Sall tem na mel am na wala yi bu ndee ay ministre sëñ Bamba ay président ku xamul sëñ Bamba doo wàll yu la wér na lool te wax dëgg daa jot yii xew waxkat yi ji jëpp neexale nañ seen seen kàddu ba ñu ñi dëggu digluwutuñ leen wërsëg yàllaa koy joxe mënuure yàllaa koy joxe aw fit yàllaa koy joxe am xel yàllaa koy joxe man a ànd ak nit ñi te duñ la jëpp yàllaa koy joxe yaakaar nit ñi nan yaakaar yàlla te wax dëgg Cheikh Fall amul morom te ku ko wutal morom di nga bari morom man mi may wax ni sëñ Bamba ku ko berberu sëñ Bamba boo nee moom rek mu def la ngay kenn boo nee moom ñëpp mu boole coogal gi. ber gi Cheikh Ibra ber Serigne Touba. mo tax Serigne Touba ber ko. bu serigne Bàmba Massa wote ñepp ñew Cheikh Fall mu jox ci bu ñewé day giri ñepp bu ëgsee day melni kenn nekkatul nit ku mom da bari doole. da wax ni. deug am na lu mu mënut doole man ko. deug am na lu mu def ta doole man ko def. dafa am màgg do am juroom ñaar fukki ak ñet jébbalu ci mom tuub. Cheikh Fall ni ko ah amato doole. amatoo wërsëg amatoo wér waaye nag ak agsi nag agsi nag du ma la mën a bàyyi nga dem juróom-ñaar fukki junni yee Ousmane Dara mu ëllëg dugal naa la ci biir kooku doolee la ma bëgg ñu xam ni réew mii ku fi toll ni Cheikh amu fi te dina feeñ de ndax ñu doon saaga yoon wi ñëpp seen i doom yi bàyyi fan lanu balaa bàyyi ñëpp dem Touba xanaa xam ni jumaa yi convocation la boo xam ni ku ko sëñ bi tàllal di nga wuy ci bu noppee hmm. ba sëñ bi jóge Touba ànd ak i rakkam ak i doomam ay seexam ay taalibeem ñëw jullit si ko bu wanee ginnaaw kon yëpp dem Touba bu fin lépp jeex barke sëñ Bamba ku mënta dem Touba gis soror i iñaanee dem Touba gi soror yi bu jumaa ji noppee Touba agsi na da dem baa sa doom dem li tax gone yi dem nag man xam naa ko ndax sëñ bi ko ko wet dem sawara te jullit yi waru noo dem sawara seeni doom ñu leen di liggéeyee le ku sa doom am ngërëm doo dem sawara ndax ngërëm kat du màggat du xuttiku du xumaag du beey gërëm ku ko am ku ne boo liggéey nga dimbali ku ko amul moo tax Cheikh Fall na ngeen te pax bala ngeen a tabax rekk waaye doom te leen seen bala ngeen a tabax ñun ko Fall lu te sa pax mun ko amul ngërëmul sëñ Tuba tawagoo sa bàmmeel nee na murit bu am ngërëmul sëñ Tuba nelaw yi bàmmeelam moo dàq nelaw yi néegam dëgg la ku am kër-kër yi bàmmeel sëñ Tuba gërëmu la baa ko mu gërëm gërëmu la hmm. keroog la wax ni bàmmeel néeg bu bees la lal bu bees dara bu bes ngegenay lu canggai càngaay lu bes bo fa tuddé loola màtt ba ngay dem ko yóbbu deug la te kat Cheikh Rafal néna na lii musal liir ci birum ndeyam jurum ñeenti wër mu li ni jaww jarwele tax ba nañ toy xet ba ba leer nañ moy musal murit bu am seigne Bamba ci nan wuti garam, bàmmeelub jam la munkir jam la nakir jam la ñu di jam noy ragal sa moroom jam bayyi borom jam ni bul yeb lu bi sëñ bi ku ko gis kiilu man de wax dëgg yàlla du ma la nëbbu benn xalaat la am mooy sëñ Tuubaa ak Seex Ibra Fall du ma tiit sawara bëgguma àjjana xalaatuma dara sëñ bi rek xasida yi Seex Ibra te billaahi lu ma xalaat gis ko fii nga may gis nii ku ku ku yor di ay nopp nit laa la jàppee boo ma gën a ragal yàlla mën naa laa yoral sax sa la man lu ma bëgg sëñ Tuubaa defal ma ko ndax boole wu ma ko dara maa ngi ñaan Cheikh Sidi Maxtaar mu yàgg yi sëñ Cheikh Xadim it moo nu fi yebal xam nga lu tax mu yebal na fi xam ne ay murit la ñu murit du ànd ak ku dul murit baa bu àndeek moom daa wàññi jéegoom gis nga jullit yii li nuy baax baax baax xam nun murit bu nu àndeek ñoom ñoo wàññi suñuy jéego nin war a doxee bu ñu doxee du mën a ànd ak ñoom yàlla bind Mustafa tànn sëñ Bamba ñëw ci biir tànnee fi Moustapha yi tànn ci murit yi Cheikh Fall ñëw ci biir murit yi jël ci Baye Fall xanaa xam ne jullit jullit murit murit murit Baye Fall ñoo ne ca kaw noonu te ñàkk ko wax du sant Cheikh Ibra mm-hmm. Cheikh Ibra tiim ku dul sëñ Bamba ah, man laa continuer jërëjëf Faye Sylla tubaarkàlla am na solo de hmm? la yow day eh, àddina bépp nga lay nga lay bàyyi xel ndax dafa am solo daal mm-hmm. te Cheikh Ibra daal moo fi nekk te mm-hmm. mooy lépp mm-hmm. eh, tey Sëñ noo ko def mu def la ni loolu lu wér la waaye sëñ Aline eh, dañuy ñëwaat ci sëñ Abdoulaye Diop Bichri waaw ndax moom daa duggoon ndar te ndar war nañ faa amub diir bala ñuy génnaat ndar ndax mi ci Cheikh Samba Diarra mbay ak lu am solo loo xam ne wax na ko maam Cheikh Ibrahima Fall te loolu defe naa wax naa la ne mooy dunduk Cheikh Ibra waxam jooju su bëggee xam dunduk Cheikh Ibra dëgg dellul ci waxi Cheikh Samba Diarra Mbaye waaw te it tey tey tey it euh, dafa mel ne euh, jot na daal sëkk ñu xam ne maam Cheikh Ibrahima euh, ndar dafa ba ko fa sëñ Touba di yebal wane na fa liggéeyal sëriñ Touba bu wér ah, ma dóor benn baat nga jàll xam nga lu tax mu ko ndar booba ndar ndar muy réew mi ndar boobu mooy Sénégal ñi gën a civilisé ñi gën a jàng ñi gën a rëy xel ñi gën a xam adduna ndar la nekkan bu seex la doon ab dof sëñ Bamba du ko fa dugal <laughs> waaw loolu ñu naan intelligent il est très très intelligent xel même yoroon ah, xanaa xamoo ni <laughs> yàlla mooy yee ku yeewu ku yàlla ne ci yow yaa gën a yeewu ñim yee seex yàlla nekkanti moom sëñ Fallou daa am ku ñëw ni ko dama war nga nu lu ne waane yàlla leen bëgg a gis ñu ko demal ci ron gi gis nga toog fu boole woo nga ñëw ci man mu dem toog fu lu ban ñeenti waxtu ban màggalee ba ca suba sa mbooloo mi naa wal wal wal wal wal wal wal ba sëñ fallu la yoor yoor ba jant bi ne dal mu woo ko mu ñëw mun gis mun ko man ne mbooloo laa gis wet gu ne da ngay walwale rek dama romb góor a jigéen mag ak ndaw ku baax lool rek rek ma romb ba ma jóg bëgg a jóg nuyu ko dellu toogaat ngir sen digal mu ko yalla ngoko way yalla rutul fen lu ci yalla ngoko way ko ah, waay torkalla sëñ lay waaw maanaam jërëjëf sëñ silla seigne silla dama yobu ci xal bu gaawe euh maam Cheikh Ibrahima Fall ak liggey dafa liggeel islam dëgg la xam nga alquran dafa wax ni yawma la yanfau malun wala banun ila man ata allaha bi qalbin bisa nga ñew bo xamni dara du fa jariñ bu leen jàpp ni doom dana fa jariñ bu leen jàpp ni alal dana fa jariñ li fay jariñ daal mooy xol bu mucc maam Cheikh Rafal bi mu koy tafsir dañu xol bu mucc mooy xol bu mucc ci weddi Serigne Touba ne loolu mooy xal bun salim bu mucc ci weddi Seexul Xaddim mooy xol boobu yàlla junju bu nu delloo ci alquran ba tey ci sootu saffi yàlla dafa wax ni يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ndax yaxfiru lakum zunubukum wa yudxilukum jannat tajri min tahtiha al-anhar masakin tayyiba fi jannati adnin zalika wa fazul azim loolu maam Cheikh Ibrahima Fall moo ko def ndax bëgg ngeen ma def ak yéen commerce yàllaay wax de yéen jullit ñi yéen ñi wax ngeen maa gëm ndax bëgg ngeen ma dégtal leen commerce boo xam ni su ngeen ko jaayanteeg man du lamb te dinaa leen ci faye aljana yëkkati ci seen i daraja jéggal leen ci seen i bàkkaar leen ba faw ndax bëgg ngeen ko ñu ne ko waaw mun da ngeen di jël seen alal liggéey ko moom lew leen ngeen joxe ko ngir yàlla ngir yàlla jël seen kàttan di ko def ci service u yàlla loolu maam Cheikh Rafal ku njëkk a def liggéey joxe di yàlla di dundee loolu kenn mënu ko moom rek ko mas a def jël dooleem jox ko koo xam ni moo làq ngërëmal yàlla ci kaw suuf ndax sëñ si la daa wax lu am solo yàlla toujours fi ne nii maa lay wax benn secret ku dugg ci bàmmeel xam nga lu xew noo def ak ahmadu lañ lay laaj billaahi lazi maa la ko wax bàmmeel képp ku fa dem lañ lay laaj mooy noo def ak ndax moom la yàlla jox jamono ji jeex na jamono jooju nag ki nu dimbali ba nu mën a liggéeyal kooku yàlla jox jamono ji mooy maam seex Ibrahima Fall Babul Muridi te liggéeyam dañu ko liggéeyal ba liggéeyal nu bi mu wàccee liggéey ndax seigne basirou mo ni ibnu cheikh Khadim. dama tok ak sama baye serigne dam abdourahman lo. nuy waxtan ni touti mam cheikh rafal ñew ak waxu mu dëgër bi mu dafa nuyu serigne dam niko sama ndogli fo ci toll serigne dam niko agna ba nopi fal togal na la juróom ñeen fukki ak juróom-ñeent benn bana ci dess mu ag mam cheikh niko gaaw ci dama bëgg a ndogu ji ba mu serigne basirou na am ci li ñu waxante ndax ku worut ban ndogu lay soxla mu ne waaye bi ñu ci tegee juróom-ñaari fan ca 3 juin 1930 maam Cheikh Rafal def ko dem ajjan mu wàccee liggéey dénkaane woon na sëñ daam taxawu ko ndax dañoo xaritoo woon lool ba tuddantey doom sëriñ daam Abdourahman Lo wax sëñ Basiiru ni ko keroog bi mu fi ñëwee li nu waxante xanaa dégg ko mu ne ko waaw déggoon naa nga ko wax mbirum ndogu de mu ne kenn xamul kii mooy kan daf maa waxoon naa ko wàcceel téeméeri kaamilu alxuraan mu demaaleeg moom ci biir bàmmel keroog bi mu ñëwee loolu la may làkk bëggul ñëpp xam ko mo tax mun ma sama ndogo yi fu mu tollu di ma laaj ndax lim bi mo doon jangalo mat na nee na ma defal na la juróom ñeen fukki mbana ak ñent mu dess ben mbana moy waccal na la juróom ñeen fukki kaamil ak juróom ñeent benn ci dess mu mat bi mu ni ma gaaw ci dama bëgg dem ndogo ji moy da gaaw ci may dem ci bammel señ dam àggale ko ñew ci seug yi waye bi ñu ñewé ba wara yëkëti mam Cheikh Rafal denc ko ku ne xam na ni dafa siisu da dis gann ba attanuñ ko sëñ daam tudd yàlla lu yag ñu dal ko yëkëti mu doora oyof ñu denc ko sëñ daam ni lu ma moon dolli dama koo yéem tey ci sëg yi bi nu ñëwee ba koy yëkkati maa ngi ko dégg muy waxanteeg sunu boroom nan ko bala maa dugg ci bàmmeel faaw nga jël siraat teg ko sama loxo ma gàddul ko képp ko sopp sëriñ Tuubaa bu mu ci jaar akat sëriñ Maamour alxuraan na wax ki suuratu Mariyaama wa in minkumu ila waariduhaa kaana ala rabbika atman maqdiya su mën a najjina lazina taxaw nasaru zaalimina na a jusiya nee na foo leen mën a jaar di ngeen ma jéggal siraat siraat mi ngi lëndëme ni wax set sewe ni jaas yi hindu gën koo ñaw sewe ni njarwañ genn fas kawar gi ci nekk yëngute ni jaanug ñàngoor ju ñu jam te déewagul te faaw ngeen jaar ci te ku ci rës daanu sawar nga jëm maam Cheikh Rafal ni gàddul naa ko yaakaar sëñ Tuubaa kon moo liggéeyal képp kuy murit nga xam ko nga nga réere ko liggéey bi mu gën a def mu gën rëy mooy bi mu ñu teggilee siraat ba doon ca jaar ñu bëgg seexul xaddim sëriñ Abdul Qadir moo ni sama baay Cheikh Rafal kenn dudul moom fekk kenn da koo laaj njabootu suñu son yi bu sunu maam maam Cheikh Rafal lu mu dem ni ko kenn du moom ni ko nun ñi ñuy tudd tudd Serigne Touba bi ñuy tuut tànk ku ko ci mës a romb dana la kas teg la ci ay luppam bu la ci tegee as diir daal di muuñ reetaan ni wax nañu dëgg doomi sëñ Bamba man rek a xam li ñuy pesé ak diis kii doomi sëñ Touba maa xam li muy pesé maam Cheikh la ko daan wax Serigne Saliou Baye Fall daw na nuyu ko ni ko ñaar ma damay ab Baye Fall mu ni ko sàllaw maa ak yow Baye Fall suñu bàyyi Cheikh Rafal rek la ñuy xemmem ci dunu lépp moom la ñuy xool kooku di maam Cheikh Rafal baabul muridiin dafa am taalibib sëriñ tuubaa bu ñuy wax sëñ Moussa Alima Gueye lu jiite loolu sax sëñ Touba génn na ci njaarim gëdd mag ñi ni leen lan mooy menn xel mag ñi xoolante am ca ku tontu sëñ tuubaa ni ko mennum xel mooy koo xam ne benn bët ba day gis ba ca des patt sëñ Touba ni bu ñaar ya pattee nag kon dootul mën a tudd mennum xel ñu ni ko tekk ni ko mbàkke nga dimbali ñu ci bu ñuy laajatee mennum xel ni leen Ibrahima Fall xelam mës ta génn Ahmadou Bamba ba mu àndeek man sëñ Tuubaa génn na ci njaareem ni wool leen ma sama Musaa mu mag mi ñu dem ñëw xool Musaa mu ëpp ay at ca taalibe ñu ko sëriñ Tuubaa sëriñ bi xool ko ni waxuma mii sama Musaa mu mag mi laa wax ñu dem woo sëñ Musaa Halima Gueye mu nekkoon ko man alquran di taalibe sëriñ Tuubaa sëñ Musaa alima Gueye ñëw sëñ Tuubaa xool ko ni ak sa yakkoon kii sama Musaa ma mag mi ni waxi suñu borom daa nekk ci dënnam ba mu ñëwee sëriñ Tuubaa jox ko lu tolloog encyclopédie ay xët yu mag la ko sëñ Tuubaa jox mm-hmm. mooy téere yu mag yooyu jox ko ci ñaar jox koy këyit mm-hmm. sëñ Moussa Alima Gueye nee na bi ma ko sëñ Tuubaay jox man ak Seexul Xadiim képp a toog benn mbindeef doxul ci boppu jamono mu ne ko bul weer sama liggéey mm-hmm. yow laa ko sant yow donc su dee di ko man nga wax ma ndax di nga ko man damaa bëgg nga sottil ma li ci biir kàggu yi ci këyit yi ma lay jox te diir bi nga koy sotti bu ci sa bët tege ndax di ko man sëñ musa Ali Bëggey ni ko soo ci jàppalee Mbàkke ma man ko sëñ Touba ni ko jàppale nañ ci demal nga def ko mu ne ko dinaa ko man mu ne ko da nga fexe bul weer sama liggéey sëñ Moussa Ali Bëggey tëjoog mbindum sëñ Touba moom di ko bind ba mu àgg mu koy jébbal si sëriñ Touba bi mu ñëwee mu fekkoon ci boobu jamono maam Cheikh Ibrahima Fall di siyaare sëñ Touba mu ne comme sëñ bi dafa waxoon ba ma weer liggéeyam naa yëglu ba mu ni ma aksil su ne ma bu ma agsi ma xaar ba mu àggale taalibim bi mm-hmm. bi mu ñëwee mu daal di xaddami ko ci baatam pour bëgg sëñ bi dégg ko ni ko ñëwal bi mu xaddami ko sëñ Tuubaa dani ko yaa Musaa aqbil wala taxaf innaka minal aminin yàlla bi muy wax ak yonent yàlla Musaa ci alxuraan dani ko dëgmal si ma te bu ragal protégé naa la mm-hmm. sëñ Tuubaa toogaat ci palaasu sunu borom boobu di wax ak taalib bi bu tudd Musaa ni ko dëgmal si ma te bu ragal mën ngaa indi li ma la doon sant mu indi kàgg goo jox ko sëñ Tuubaa sëñ bi jël ko teg ci ginnaawam maam Cheikh Rafal siggi fi mu boofoon wetu sëñ Touba ni ko Moussa Aliouma Gueye doom jàmbaar nga ji da ngay bind loo xoolu te yàqoo ci dara <laughs> kon dencub sëriñ Touba maam Cheikh Rafal la ko xam mhm. jëmm ji woote bis bi di sëriñ Cheikh Khadim Fall mhm. moom sëñ Abdou Abdoul Khadim Fall mhm. moom sëriñ Mor Talla mu maam Cheikh Rafal maam sëñ Mor Talla nekk na ci loxol sëriñ Touba fukki at juróom-ñett sëñ Touba ko yar ku nekk xam na ni ibadaat yépp la daan def ngir walmaale ko sëñ Touba mu nekkoon ci moom di aalim bu mag gis naa bayit yu bëri mu way ci arab ak ci wolofal sëñ Mor Talla Fall moom mii ku nekk xam na ni Seex Rafaal mës naa am dënn bu koy dikkal da ko daan dikkal bu ko dikkalee day métti sëñ Mor Talla nee na mës na koo dikkal mu yónni woolu ma bi ma ñëwee maa ko fekk mu defee nu ci ruum bi mu ne ma kooku Mor ma ne ko waaw Fall mun damaa bëggoon nga demal ma ci ku tedd ki soo demee nee na ma defal ñaan ndax sama dënn bi tey dafay métti sëñ Mor Talla nee na ma seeti Sëriñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa nag su la daan bindal saafara ci àlluwee weñ la koy bind raxas ko jox la xànjar xànjar ànduloy weñ ko xànjar lay sëñ Tuubaa bind jox la bàyyi Demba Kebe moo ni sëñ Tuubaa ni ko xam nga lu tax ma bàyyi bind saafara mu ni ko déedéet mu ne ko damaa dem ba toll ci maqaama boo xam ne saa ma cappee sama xalima sama daa bëgg bind saafara Moustapha day muuñ di reetaan nan sama waajang may taggati ma rus yanant bi dima xaar ci dara may def leneen waaye soppil na sama bind muy saafara lu waaye jaaxle boo ci saafara sama bind mu saafara la mu ne ko mortaala jox ma àll woy xànjar ji ma ñaanal sa baay Seex Rafal hmm. sëñ mortaala xool xool mel ni da koo gisul sëñ bi ni ko da nga koo gisula seen teggin daf cee bokkul woon déedéet ci sëñ Touba hmm. mu ne ko nu koy bëgg gis Mbàkke sëñ Touba ne ko dañ def lu gën a gaaw da ngay ñëw ni jàkk xool la ma ne jàkk xool la saafara si sa baay soxla maam Seex Ibra Faal def naa ko sa gët yi soo demee dina ko xam fi ma ko denc sëñ mortaala ni jàkk xool sëñ Touba jóge fa ñëw ci baayam Seex Rafal hmm. daa jub bunt bi rek maam Seex Rafal ni bërët kooku mortaala mu ne ko waaw faal mu ne ko sëñ Bamba wax na dëgg wér naa bu yàgg saafara sang si bët yi doom kon denc sëriñ Touba Seera Faal la ko xam ku nekk xam ne sëñ Abdul Karim Touré taalibib maam Cheikh taalibib sëriñ Touba loon bu mag sëñ Abdul Karim Touré moo nuru woon daxiyatul kalbi ndax yanantu bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi ci weeru rajab ku nekk xam nañ ci la rañaanoon ñaar fan yéeg juróom-ñaar subhaana allazi asra bi abdihi laylan min masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barak naa hawlahu min ayatina innahu samiun mu jeexe weer wii mu rañaane woon di ñaar fan yi juróom-ñaar bi muy rañaan ku nekk xam ni baatu abou bakar la yàlla mujj jël di ko waxeek moom pour mu ñime jibril mi ko doon gidee boobu la boobu yoon la ko yanantit mësa gis beneen bi ci des arafat la ko gisee jàngkat yaa ngi may dégg ñaari yoon la mustapha mësa gis jibril déggantaan di ci des yépp ci forme daxyatul kalbi lay dikke beneen saaba la woon waa wa iza ra'aw tijaratan aw lahwan infadoo ilayha wa tarakuka xaa'iman ja ca jeexitalu sóotul jumaa am na mu fassiroon yu wax ni jëmm jooji di dahyatul kalbi moo waral yàlla wàcce aaya bi Muhammad Ali Saabuni bind na ko Ibn Kasir wax na ko Abdurahman Suyuti bind na ko ci seen ci seen tafsir yi nu de jëmm jooji di dahyatul kalbi dafa rafetoon te tedd mën a joxe xaalis moo tax sunu boroom di dogal su Jibril waree wàcc ci Mustapha day jël jëmmi jibril def ko jëmmi daxyatul kalbi bi pour yanant mën koo ñemee ndax jibril dafa rëy ñëw bi mu daan ñëw ci moom nag di yor forme daxyatul kalbi yu bari na ko bett yanant beeg daxyatul kalbi yu nga jàpp ni daxyatul kalbi yu moo toog fekk booba jibril la toog ak Moustapha sëñ Touba danaan wax naan Abdul Karim Touré mi daa nuru daxyatul kalbi yu moo tax jibril saa buy ñëw ci man forme Abdul Karim Touré lay dikkee ngir ngir ñu mën a saafoo man ak moom sëñ Touba ci njaari sëñ Abdul Karim Touré moom i na nga xam mbër la te jibril daan dikk ci jëmmam di seet si sëriñ Touba ci njaarim moo ni sëñ Touba woo na ko di ko waxtaanal ci mbaaxu maam Cheikh Ibra Fall nee na wax naag man lu mat ñaari waxtu yoo xam ni lu mu wax du ci dellu ba mu demee bay tëj jataay ba te ni ma Abdul Karim Touré ma ne ko mu jël baaraamu sànni kaayam teg ko ci sama nopp ndijoor ni ma loo a dégg Ibra raw na dellu ni ma Abdul Karim Touré ma ne ko Mbàkke mu jël baaraamu sànni kaayam teg sama bëtu ndeyjoor ni ma loo mën a gisit Ibrahima Fall moom raw na alaaji Mbàkke Buso nag mi nga xam ni mm-hmm. ku ko raw gisuma ko bi ko sëñ Moussa kay way dani ko nasab nga fardan sukkoon nga janna xafat nga bid'a rafa nga sunna su bamba doon naxtu nga def man uutu yaa ko topp mën koo wuutu yaa di fexlul fexlul maa di dootoo am mu daari ci grammaire la ko sëñ Moussa Ka way alaaji Buso le Seydi alaaji Malik borom Tiwaawan wax ni man bu ma xamul woon dara ci sëñ touba te xam alaaji Mbàkke Buso doy na ma seere ma xam ni kii ku muy raamal ndax man gisuma kenn ku melni mom ci islam ci xam-xam ak ci ragal yalla ak lépp yendu ñaarim daa yendu ñaarim hmm. man señ Mbàkke Bousso señ Mor Bay Sise wax ni hmm. man ka dañ ma tëj prison waaye Mbàkke Bousso ñaarim hmm. dina bëtt prison ba dem siyaare ji ko señ Mor Bay Sise nee ma ñëw fekk na ko mu tok mel naar gannar nek ci yoonte bi ak saaba yi nek ci sëriñ Tuubaa ak yi ba ma dee ma sukk nuyu ko ni ko yaama ma tax a génn kët mënoo yennu njëriñam te du ma génn sama prison bi yow siyaasi la sëñ Mbàkke bu so fay ko dellu ca waxtaan wa ba yàgg xaal ji ñëw sëñ Moor wax de nee na sëñ bu so ni ko Mor mun ko Mbàkke mun ko baa xam nga ni bokk ak sëriñ Tuubaa deret jëriñul dara billahi sëñ Moor ko wax mun ko ah mun ko bu fekkan bokk ak sëriñ Tuubaa dere jëriñ na dara Cheikh Rafal nun ñëpp lu ne ci suñ kanam waaw mooy ñëpp sëñ Mbacke Bousso sëñ Dame Abdourahmane Lo sëñ Mol dem ñoo raw ci réew mi. waaw ci xam-xam. xanaa xamoo ni sëñ bi mu fi ñëw xam-xamam Sénégal la fekk daa andi yëfam di jaay. sëñ Tuubaa néewul bi julli néewul bi woor néewul bi sàkk asaka néewul bi natt mun ko bi xidmatin la wax yàlla rek ni nangeen ngeen ma jaamu ma yërëm leen sëñ Bamba ne na ngeen ma liggéeyal ma ma jox leen àjjana yàlla dafa jaamuloo nit ñi sëñ Bamba liggéeyloo nit ñi yonente bi sax mu a liggéeyloo kenn na ngeen ma jaamu ma yërëm leen sëñ baa ma ne ku ma liggéeyal dem àjjana bi xidmatin la wax aw bi hubbin aw hadiyaati Cheikh Fall nee na ñett laa jàpp ba raw ñëpp te kenn du ma dab lu nit di wax laa ilaha illallah ci gën maa ko jël liggéey ba liggéey jeex liggéeyal sëñ baa ci jigéen maa ko jël xeeti jaamu yàlla yëpp bernde ci gën maa ko jël daal di wax ni alxuraan li muy rëy rëy ñetti araf la maa ko xam ñun ko nun ko noo ko xam ne mu ni baa sin mimara maasalu yat ñu mas mu ni bàyyi lu bon faaw siin maasalu yat ñu mas mu ni sax ci ndigal faaw miim maasal ab lonk ñu mas mu ni muccu aduna ka lakhira kamil bi muy reey reey reey yi rek la jullit bu bayilu bon sax ci ndigal di nga muccu fi muccu yowal xiyam amul leneen alaaji mbacke bu sa mom may leral mhm. neena dama bet serigne touba mhm. serigne touba ci ginnaw timis mhm. neena serigne bi dafa fete penku neena benn lay wax ba baat bi sax lool sëñ Tuubaay wax naan Ibrahima Fall gërëm naa ko di ko wax ca kaw dañ Mbàkke bu sonee ni ma xame meloo te yàgg moom damaa ñëw daal di koy dànd toog di ko déglu ba sëriñ bi àggal nee na ma raam jox ko loxo ni ko moom Mbàkke lu Ibrahima Fall def ñu defale la ko noonu ngir nga gërëme nu nii nga ko gërëme mu gëstu ni ko Mbàkke Buso mu ne ko Mbàkke mu ne ko Ibrahima Fall damaa teg fa ma yàlla ak bi teg ma teg ko fu ma dul tegati kenn mhm. kon fa sëriñ Tuubaa teg maam Cheikh Ibrahima Fall tegu fa kenn loolu mooy dëgg yoon yi mooy bunt bi kenn mënta jariñ ci sëriñ Touba tawagaroo maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Touba nee na mënuma ci ñett ñi dara yombal xiyam dama leen bàyyi ak safara mu def ñoom lu mu mën ñett ñi ki ci njëkk mooy ki nga xam ni maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine day diingat mbiram duma ko dimbali ki ci topp mooy ki nga xam ni sama wéejur wii di soxna jaar di wéejur ku nekk da koy sàllalu ki ci topp mooy koo xam ne damay tëkkaleeg waayam ku ne dara ku kon maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. moom la Serigne Touba di xool. Mm-hmm. ni yàllay xoole Moustapha alayhi salaatu wa salaam. Mm-hmm. noonu la Serigne Touba di xoolee maam Cheikh Ibrahima Fall. tey dinaa la wax benn mbir. mbindeef yëpp jullit yee ci gën. waaye jullit yëpp murit yee ci gën sëñ Touba ko bind kat. moo ne inna allazina taallaqu biya faaqu gayrahum ila yawmi alqiyamati sëñ Touba ne ne ñi tudd murit ànd ak man ñoo gën ci biir islam ba àdduna tukki kon jullit ñi ci biir murit yee ci murit yi nag Baye Fall yi ci gën ndax Baye Fall yi ki leen représenté maam Cheikh Rayam Fall mooy liy ñuul ci Serigne Touba Serigne Touba di luy weex mooy jamaal gi Serigne Touba di jalaal ci moo taxawoon wane ko moo ko liggéeyal ni amut wàcc moo jël léppam jox ko fu Serigne Touba samp mbër mu samp mbër ci wetam tey dafa waxoon sëñ Ibrahima Thiam te ku ne xam na sëñ a Thiam sëñ Ibrahima Thiam 1880 la gane àdduna 1890 dañ ko bàyyam jox Cheikh Rayam tok nak mom ba 1930 kon def nak Cheikh Rafal ñeul fukki at lu mu wax wér na mhm. ta lu bari ci waxtaan da ngay dégg seigne Touba ni Baye Ibrahima cheikh ibrahima neena mam Cheikh Rafal ni ko Ibrahima cham mu ni ko fal mu ni ko yalla teug na lambam mhm. ni ko yalla bi mi teug lambam bisu aljuma lu ko teug ni mhm. ko waye dom bisu gaaw ba ci la lamb je xum ni ko waye dom dibir la lamb ja tas Ibrahima mu ni ko fal mu ni ko doma laaj bi lamb yalla tasee ko daan mu ni ko fal ko daan mu ni ko nañ ko wax ay teggin Hmm. waaye bi làmb ci tasee yàlla mi ko tëggoon woo na ma ñetti yoon ca digg géew ba gërëm ma rasulullah mi gën ci mbindeef fii woo na ma ñetti yoon ca géew ba gërëm ma xaadim rasul mi man ci mbindeef fii woo na ma ñetti yoon gërëm ma ibrahima caam mu ne ko faal mu ne ko keroog laa raw bët raw xel kuy xool duma seen kuy xalaat du xam maay kan maa jaaxale jamono kon maam Cheikh Ibra Fall nanu ko waggar sëtam bii nag di sëriñ Cheikh Khadim Fall mm-hmm. di jëmm ju lewet di jëmm ju civilisé mm-hmm. jëmm ju sagal yoonu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax tey jii li xew événement yi xew ku nekk kii riir di tuddoo Baye Fall te meloo na nga war a mel ndax ñuy xebat yoon wi di ko jaare ci yow te Baye Fall na nga gëstu li ma la wax Baye Fall yi ñoo gën a mën alxuraan ci ñu dul ñoom ndax dañ koy jëf di ko doxe ndax maam Cheikh Ibra Fall dafa waxoon ni alxuraan ñu ne ko waaw mu ni 332015 araf la waaye araf ci nekk Serigne Touba wax na li tax yàlla wàcce ko maa jëf li tax yàlla wàcce ko tey nee na xasaayid yi Serigne Touba liggéey liggéey bi ma ko liggéeyal moo tax aw ma gerte toog di ko durus waaye su ma amoon jot gi raa iya lay taxoon ndax mooy escalier bi Serigne Touba jaar ba jéggi góor yàlla yi daane waaye nag a ah, doom na ngeen xam ni Serigne Touba xasida gu ma liggéey jox ko jaam ñi mokkal naa ko ñeen fi guddi sama dënn la ko jële doon ko bind kenn kee kenn kee Serigne Saliou dani mbaa bokk leen ci ñuy jàppee Serigne Touba ak Cheikh Rafal ñuy ñaar ko déedéet Fall mu ne lenn la de sëñ Modou Aminata Fall Cheikh Béthio la ko wax da ko nii maa ngi lay digal. Mhm. parce que mhm. foo fekkee te ñuy waxtaan ci sama am Cheikh Rafal. Mhm. na mel ci ni yéen mooy sëñ Touba du ñaar kenn lan. ak sëñ Touba. booba Cheikh euh, Cheikh Béthio dem na ci xaar ji ba defa ni moo ne ci kalam sëñ Sall yu bëgg koo jàngal Cheikh Rafal ni ko dellu sel maa ngi lay digal foo fekkee te ñuy waxtaan ci sama am Cheikh Ibra. na mel ci ni yéen mooy Serigne Touba du ñaar kenn lañu. Cheikh Béthio ne loolu ma dellu si. ngay xool sëñ Abdourahim Fall dafa mas a ànd ak délégation sëñ Modou Aminata Fall sëñ Modou Fallilu Fall leen yabal ci Serigne sall mhm. waaye ba ñuy dem nag mhm. daa nekk àllarba mhm. dëppoo ak ñetti fan ci weeru olof ku nekk xam nañ bis boobu sëñ Saliou du ci faral di recevoir waaye ba nu dikkee yëglu ña ca buntu ba dañoo wax ni bis bi nekkul bis bu sëñ Saliou di recevoir bi ñuy dëpp sëñ sall woo yëngu ni ana ñana fi ñëwoon ñu ne ko waa kër sëñ Modou Fallilu Fall mu ne ana ñu ne ah génn dañ wax ni bis bi tey jubawul Serigne Saliou moom dabal ma leen ba wax bis sama baay seex na Fall waa këram bokkuñu ci Cheikh Ibra Fall amul bis Baay Fall amul bis lii saali Saliou ko waxal boppam léegi nag sëñ Moussa Ka bi mu koy woy mhm. lii mu ko wax kenn mësu ko koo wax mhm. Mhm. li mu ko wax ci woy bi kenn mësu ko ko wax moom sëñ Moussa Ka ba koy woy ndax ku nekk dégg na ci àdduna ndax bëgg a jeex ci biir dañuy mës nay xibaar ak jébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ni Bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wi ab murit taxaw waaw ñaari moom fu mu benn mooma rek waaye moom koy mënta nekk wax dëgg dëgg. sëñ bu moomee Seex Ibra Faal. waaw sëñ Bamba ay suñu borom. ku dul yàlla moomoo sëñ Touba moomoo Seex Ibra man maa mais Serigne Bamba ay suñu borom. dama la ci indil firnde sax. Mhm. Serigne Balla Faali Dieng moo maa bett Seexul Xadiim li ma lay wax nee na maa ko bett sëñ Balla Faali ñeenti at la ko sëñ Touba magge 1856 la sëñ Touba di 1852 mbiru màggal get moom la ko wax mbër la woon waa këram la dénk jaalibatul maraaxi bi ci tarbiya neena na maa bett sëriñ Touba ci njaareem neena na booba lëndëm na crise benn mbindeef doxul neena ma gis ay pax sëñ Touba di dox ci diggante pax yi mu ngi ku ciy tifli neena na waaye baat ba muy wax mu ngi jëm ca kaw ma koy dégg samay nopp ñu ni ko loo bett sëñ Touba mu koy wax mu ni maa ngi ko dégg mu naan bind mbind mi Bindi mindi mi dindi dend bi bind sa bop jaar fu sew wacc ci dend bi ta yakul sa nguur ga dara dara ma yéeme man ahmadu mam seex rafaa la ko trouver gis nga wax jooju nga wax wax ju mata setantal la mas ne xibaar ak jebalom bay wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom ras ko jox ko say fa nga ni réy la seex deug deug fu jaar <laughs> ah, tey dama defe ni ponkal mo nangula ñew mm-hmm. ñëw liggéey seen mu gërëm ko takal fay medaille sey Cheikh Ibra fa mu takkee médaay yii. Mm. booba ndey ak bàyyi xewul. déedéet. Mm. Cheikh Ibra. waaw ah. moog sëñ Bamba. Mm-hmm. jaamoon yàlla ñetti junniy at. Mm-hmm. te bindulu aadama. wér na lool dafa am loo xam ne ragal koo wax. du mm-hmm. cant. waaw ah, sëñ mooy borom jaam ñi. mbàkk sëriñ Touba. man de loolu la ku ko xamul. di nga wéet ci barab. Mm-hmm. ni bu ma yëgan xam ko. barke Serigne Touba <laughs> jërëjëf. Serigne Touba du kenn. kenn du moom. waaw tëjale Serigne Bamba ak beneen Serigne araam na. géej ga fa ndar. gisuñu ko mbar fa yaasin. waaw xam nga ndar am na géej dellu ni mbar am na géej day niru dëgg waaye du dëgg. mbar amul géej fooraa sa fa nekk ak yi nag ña fa dëkk xam nañ ko. maanaam mbar ak ndar daa niroo mm. mooy sëñ bamba gaa yi sëñ bamba kenn war a koy tudd tudd kenn mm-hmm. bokkaale yàlla dëgg dëgg dëgg mooy wutal sëñ tubaa morom dëgg la yàlla ci yàlla musul nga li ma bëgg a wax mooy mm-hmm. tarbiya mm-hmm. maam Seex Faal la ko andi xam ni waaye waaw sëñ Musaa Ka ci leeral lépp dañu mës na xibaar ak jébbalu bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bamba moo la moom raas ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wi ab murit di aw baraw pexe mari ba am ngërëm bari murit te dootu ree di tex texi mu dal di dem tay ba Dakar boobu mu ngor seigne Touba ngir dégg Bamba di fa xaar na sëriñ tay ba Dakar ci njàng lay xamee pexe mu tëdd guddi listaxaar bët set mu xey ba tosbar sëriñ makta Touré fa jaar leeram nga wan ko luy pexe makta Touré nga yor yu cuur yenn ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ ba yónni ko ci bour cheikh Ibra top cay fexe mu gis fa cheikh Adama geey sanni mbiram dal di ca ngoy mu wan ko Bamba mbeur mu rëy sëriñ ba naa ko fexe mu wax ko tektal ya fa mom sëriñ ba wan ko la fa mom mu xamni gis ko ko mu dal di fa mbiram joxe ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci weeru koor bi bisub dibéer la mbir ma wóor faal njaga yaa rëy pexe mu sóobu far ba jiitu leen bàmba ni kii ëpp na leen leeram gu rëy gi wër na leen fu mu toll xol bay nux nuxi wax na ni tuuti kon mu dem fekk sëriñ ba lëm mbiram ba kenn du jot ci baatinam luy ci bis ba ñuy texee jaaraama Seex Ibra Faal lamp bi Seex Bàmba Taal leeral ngi réew mi yaay Kamaal yàlla nga dollee bërëxe ba mu ñëwee Mbàkke Kajoor fekkoon na daara ja di sóor moo njëkk a yalwaani di woor ñu di ko di tex-texi yéen doo liggéey fanaanee root liggéey baa ngoog yéen doo liggéey fanaanee root gaa yi nelaw gaa yi nelaw ba ba luy ganaar ni kor koret moo ko fa xewal daawul doxi moo fa xewal nu yóodi raam amul woon ci yoon yi moo fa xewal nu yóodi raam moo nu teree wu yóoti naam bu mbàkki xewee seex rafal fekkoon na ñuy jàng fa maam moom muy murit di fexe fekkoon na daara ji di réer ndax jàng xewal moo dindi di riir waaw moo dindi àllarba ak di béer lu bamba wax mu daal di buur lu mës a am daal di joxe mhm. moo fa xewal sëqal kawar mhm. moo fa xewal saxoo sikkar sikkar a gën ci lépp mhm. moo fa xewal soli sagar daawu fa bay di ruux ruuxi ba mu ñëwee mbàkkeeg bawal daf ne na waa kër ga yëpp bawal naay soq di rooti di wal boo léegi liggéey di ko joxe lu bamba wax mu daal di naaw fóoleem jure ja sant saawu kooka mujj na tuub kooka doon jéem a dégg naa ko da ngay deltu ginnaaw jàngi mu kon liggéey yoonu mu yëpp Cheikh Rafal la tubaarkal la <laughs> <laughs> jërëjëf euh, sëñ Ablaye Diop Bissir am na solo Baye Sylla Baye Serigne Sylla tubaarkal la am na am na solo <laughs> euh, sëñ Aline Badara waaye rek euh, dafa bëri lu mu indi loo xam ne uh-huh. sax dafa am firnde lu bëri mm. daanaka boo dee seet lu waxtu wi xam naa li ci def sax dafa mel na ah. bëreetul ah. waaye lu bëri rek indi na ko waaw indi na ko indi ko ci firnde ci ci sëñ sëñ Moussa Alima ndax loolu sama wayjur bu ñuy wax sëñ Modou Ndaw doom Baye Cheikh Ndaw la mi ngi fii sax ci mm. na ko bu baax Baye Serigne Silla moom waaw sëñ Mouraminte lañ ko tuddee moom moo ma ne Alima euh, ñoom ñaara fa daje ci ci sëñ suba oh sëñ Saliou ne yéen ñaar ñii de war ngeen a ndax seeni ñaari wayjur ya dajee nañ waxtu wii ci Serigne Touba ci la doon nettali bis boobu baat bii nag daa bokk ci ñi daa dàq jàng alxuraan ci yoonu murit mm-hmm. mm-hmm. nee na mm-hmm. ku du doomi Sëriñ Tuubaa dàq ko suñ mu doomi tafal alxuraan na lool gënoo koo maandu te moo la ëpp ndigal ëpp la jëf dëgg la xanaa xam ne Tuubaa ña ña dàq jàng alxuraan ca Tuubaa mënuñu ca tool ya ña man ca tool ya dàqunu faa jàng alxuraan Sin mudo man ci tole ci te gars yi dàqulu ko jàng alxuraan sëñ muudu bu toge nga ni sëñ abdoulaata jaam jaamaatum seera faal bu dib sëtam di liggey ni di ko garaate ba mu ni majji nga defe seigne touba ko jur fu ma am xanaa xamoo doomi seigne bamba fan koy niro ab juddu fa da ngay xawa de rek xol si ab ni mel bu toge seigne sawi da nga naa rakk ma xool sëñ ni mel ni nga ba xam sam seigne sooy ba amee atam leetal laatam sëñ Sohaybu dama mu talaam sëñ Fallu xoolal sëñ Sidi Mbàkke sëñ Tuubaa mo andi gay deug la bëkk dama wax ni lu mag ragal gone ko ko ñëmé amo conseiller deug la deug la lu mag ragal waaw lay gone ko ko ñëmé amo conseiller deug la Tuubaa kenn du len songu lay deug la na kër sëñ Fallu barke sëñ Tuubaa sëñ Fallu ku masa teuf mo la ngañ barke sëñ Tuubaa konkal faatu na ñu mu sang ko sang ko muur ko diko julé ji mu romb kër sëñ Fallou fekk daa tooñoon sëñ Fallou sëñ Fallou ni rus naa baayam de na kon bu duggee ci bàmmeel dinaa ko woon ni foofu maa ne maa fii sëñ Fallou ah, oh. sëñ Fallou mësta ñëw àddina bu yonent bi génnee ko mel sëñ Fallou mësumee ñëw lu mu mas a xalaat ba wax ko yàlla def na ko xam nga lu waxam fii ci àdduna maa fi man biir bàmmeel Basiru fa man sëñ Basiru man mii man mii lan xamal ni ku ma lay koy waxal ci bàmmeel bala ngaa dugg àjjana wax ak sëñ Basiiru amul Tijaan amul Xaadir amul Laayeen amul Ñaseen amul Canaba Canaba amul Murit ñëppay wax ak Basiiru wala jàmm du xew waaw dëgg la <laughs> bàyyi si la am am na solo sëñ naa li dafa mel ne sax ah, kii na eh, dafa mel ne sax jotaay yu fi ne xam naa ne neexaay bi tax tax na ba xamuñu fi foo waxtu bi toll fi ne <laughs> ndax am ñu ngi ci cat li waaye rek eh, benn lu lu firnde rek ci li nga doon wax ci biir bàmmeel te bàyyi si la sax ci la nekkoon nii eh, góor gi ñuy wax mbéykan xandi waaw eh, yàlla daa dogal Cheikh Ibra ko yar moom moo ma wax ci làmb ne ma Cees laa sama bàyyi jébbale Cheikh Ibra muy ndaale ma njaarim mu ne ma liggéeyal naa ko ba mu jóge fi ma liggéeyal sëñ Mourou Safal ñaar fukki at yi mu fi toog ci sëñ moo ñaay tomb bu deel ñoom sëñ bu sàkkoor leen denc mm-hmm. sëñ Fallou bu sàkkoor mii defe naa sax moo leen denc ndax mm-hmm. eh, ci jamono yi lañ làqu yàggul moom moom moomu bis ba mu wàcc liggéey dafa dafa ma bëggoon ma ko daan fekki këram ñu la waxtaan Cheikh Ibra waaye fekk naa dencam falaa dégge mag mm-hmm. ci mag ñi Cheikh Ibra yar ñu fekke woon ñenn ci denc bi mu wax am ko wax ne bàyyi Ibrahima Mbodj. waaw moo wax ne dama nuyu maam Cheikh Ibrahima Fall. toog ci wetam fekk muy waxtaan ak sëñ Yaaram Mbay. naan ko Yaaram yéen borom téere yi laaj naa leen lan ngeen wax ne moom la fan maanaam fan ngeen wax ne ku faatu fa lay ne. parce que sëñ Yaaram ne ko xanaa barsàq mu ne ko ba mu des sunu taalib maag sëñ Bamba. Yaaram mu ne ko Fall mu ne ko sunu taalib bi de ku ci xëy faatu àjjana la yendu ji. ku ci gont faatu àjjana lay fanaan yi waaw daan na ko yaaram mu dellu na faal mu ne ko yéen borom téere yi lan ngeen wax ne moom la malayka yi di laaj ab néew ci biir bàmmeel waaw leen sëñ yaaram ne ko xanaa ay na moo rabbu ko nee na Cheikh Ibra na ko ko dabba nañ ko léegi waaw léegi nag ay na sayxu ko la ñuy laaj waaw te man Ibra Fall di ruus naa ñu naan ma ay na sayxu ko mooy tudd benn sëñ budd sëñ Bamba loolu korog kilifa yëpp waaye ñëpp a ngi toog <laughs> borom xam-xam yëpp a ngi toog jugaguñ fañ toog fa lañ ko doon nettalee mag moo ne Cheikh ko wax te na te man maa ngi fekke kon moo tax li ngeen wax ne eh, ku dugg ci biir bàmmeel Sëriñ Tuubaa nga fay xalaat Cheikh Ibra nga fay xalaat am naa ci firnde loolu firnde la te loolu war nañ ko sëñ Mor Jooja xam nga ko dégg nga ko bu baax a baax bàyyi bàyyi sëñ Mad Silla bu xalifa ci la wuntee mhm. satub sëñ ci tafsir bu mag mhm. daa am ko faatu ci la mu yóbbu ko Tuubaa ci jamono mhm. gaskat gas ñaari bàmmeel sëñ Mad naa fay ñaari bàmmeel yëpp ten ten rob ci bii mu neexal ñi gas bàmmeel ñu ñu rob ci bi ñu jëkk jot bi mu robee ba noppi sëñ moo joojo woo sëñ Mad Silla ni ko Mad mun ko Silla mun ko xanaa xamoon ne néew buñ suul Tuubaa li war ci moom suuf see koy def jëf borom da koy geganoo rek bu amee wëlal wu néewul tubaa te ne ci xattal mu sëkk ca sànni ko wala lu war ci néew ci mbég suufu tubaa koy def wér na kere bi am yaay waxee ba yeggal benn waaye ni ko man maa ngi bëgg a jaaxle man ko amul ko fu nit faatoo ngeen yóbbu ko tubaa loolu daam nu ngeen ko mane te suuf yëpp benn la mun ko daala tontu doo son duma son ko ku war bar kawlax ah astafurlah ngaay dem kebemer jàpp fa bar ñëw Cees jàpp fa bar dem xombal dem jurbel jàpp fa bar dem gusaas jàpp fa bar ba fas bërigo mu juróom ñaari bar nga dem ba këni woo dee ko sotti ko fa ndax des na ko dóor mun ko bar kenn du ko dóor kawlax mun ko lu tax mun ko mboose bar la mun ko ni kam bar moo mën a ramu bar fa kawlax itamit sin bar bar tal waaw wér na da ko nekk loxo gis nga lii mu wax ci wàllu suuf touba sëñ masamba mbàkke eh, rakki seexul xadim mhm. moo ni sëñ touba mos na koo jox am mbind di ko maas loo mhm. nee na koy maas maas gi dafa bari lool mhm. nee na àggale moo ko nag ma ne bu subaat naa ko àggale nee na mu tëdd guddi di dallu bi mu tëddee rek ci biir gént mu neen nu wan ko mu dégg yuuxu mu foor sëñ Masamba Mbàkke ko nett nee mhm. bi mu déggee yuuxu mi mhm. dégg yuuxu mu foora noonu ci àdduna mhm. nee na mu xëy suba nag fàtte gént nee na bi mu ñëwee njaareem ci jataayu seexul xaddim ñu koy siyaare mu toog rek sëkk ne sëñ bi daal di sikki daal ni ana yéen fer yi kan moo ci gént démb ci guddi yuuxu mu ko yéem sëñ Masamba ni ko man mii la Mbàkke dama ko fàtte woon sax sëñ Tuubaa ko xam nga lu mu doon mu ne ko xaw ma ko de sëñ Tuubaa ni ko sëriñ Siréloo ma ca Barzak. moom laa yónni woon mu jëlal ma sama taalib yi tëdd ci armeelu njaareem yëpp yóbbul ma leen Tuubaa bi mu leen di yóbbu ba mu des benn néew da koo fàtte woon néew ba toog ci dikku bàmmeelam yuuxu ngir xam ne ko Tuubaay jariñ yuuxoo ma ngi dégg ma sàmp tubarkal tubarkal xam naa nag dafa mel ne dañuy daal di di dollee ziar bu baax na Serigne Cheikh Khadim di ñaan sans borom yàggal ko fi lool te mooy ko ak wér di ziar bu baax soxna Maguette Badiane way juram di sunu maam nekk ca Touba ñu ngi koy ziar bu baax soxna Ndiaye Khadim soxna Taye Fall ñoom ñu ngi leen ziar Serigne Abi Fall njabootu Serigne Abdou Khadim Fall lañ mu Serigne Mortal ñu leen di baax a baax eh, ba Serigne Cheikh Khadim boo gisee mhm. plateau bi demee nii ñu sawar ci mhm. ginnaaw mhm. Cheikh Ibra di maamam mooy jikko aw doxaliin aw melo jëf ju rafet xam ne maamam bëgg mu nekk ci man sëñ si la Baye Fall 33 ans la am dakaar bi ma fi ñëw mën nga tàggu sa Baye waaw vingt ans la am mhm. waaye loo ma dégg lu ne dëkk la ndax du ma daw mhm. soo gisee mu di ma yónni ma nekk ak moom mhm. cant gi mel nii mu mel ci man ci xol doxin wee man du ma ànd ci lu ñaxe sëñ mu demit Fall ku mu toqi xamala lam nekkan te bëgg nga boo faatoo nga fekki ko ko la woo ci lu bokkut ak lu yàlla gërëm doo ca tàbbi maa ngi siyaare ñëpp di gërëm ñëpp mhm. maa ngi nuyu ñoo xam ni mhm. mënuma leen a bañ a nuyu mooy sëñ Modou du Samb mhm. ak ku mu bokkal na Salikul Jinaan sëñ Mbacke fay sax laa koy tàmbalee su ma nuyoo kooku ba noppi am na ko ma tàggoo léegi muy jëfkat bu rëy di soxna Faati Mbacke Ñas léegi dañ tàggoo lu yëngul lu ne loxoom a nga ca liggéey katu Serigne Touba boo xamante légui la tag ak mom mu jëf ci man jëf jo xamni ni mënumaa toog fii ba dem duma ko sant duma ko gërëm duma ko ñaanal ma ngi koy ñaanal moom njabootam gépp yalla Serigne fallu gëna tek loxom loxoom ci kawam ak njabootam gi ma ngi tagu ma ngi nuyu soxna fati jeng mu Moussa Saliou ak bakkar Cissé ak soxnam ma ngi nuyu soxna ngi ak lu bokkal ci ndaga Silla ma ngi nuyu bokk di gërëm ñëpp maam Boussa Silla Roqay fama Faama Silla ci amerique woo na ma fii woo goo xam ni émission bii moo tax nee na ma saa ngeen tàmbalee ba kër ngeen di noppi maa ngi ci jar maa ngi nuyu rakam say nagu silla ak borom këram may silla maa ngi nuyu na koy silla ak Modou Kane borom këram ak sama mag Njaga silla maa ngi nuyu ñëpp wasalaam jërëjëf waaw jërëjëf sant ñëpp rek di nuyu Sénégal gi ñu doon seetaan yëpp di nuyu sëñ Cheikh Khadim Fall di seereel Sénégal gépp ni xam nañ ci moom dignité xam nañ ci moom nité xam nañ ci moom bëgg lu baax xam nañ ci moom tabe xam nañ ci moom liggéeyal maam Cheikh Rafal te bis bi wane na ko kon bis boobu na xam ne Sénégal gépp a ko bokk mhm. képp kuy jullit bokk nga ca ndax maam Cheikh Rafal am na lu la liggéeyal mhm. nga yëree ko ak nga xam ko mhm. ñu ngi ciy woo ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan Serigne Touba mu nangul ñu ngi siyaar suñu wéyjur ajaratu kangé job mu ngi sétan ak soxna marine job sama tante ak soxna Batoor sama mak di siyaar ñoom ñëpp di siyaar sama xat di ñom seigne mustapha job tay sir ak seigne Jili Ñang ñoo ñi a ngi seetaan émission bi di sétan Sénégal gep nak ndax ñëpp suñu soppé lañu gep ku ñu sétan ñu ngi lay nuyu do jox sa way yalla ñu yalla may dégg tok te yagal leen fi yéne ci amin Maam Cheikh amin amiin sëy waaw leen dinañ bu nañ bu ngi tey ngi jay Njaay nak nag xadim jay Kayaar mu ñu ñakul ni mu ngi sétan waaw ñuul mako ko de nuyul ma seigne Jili seigne Jili ñoom du ñuy conférence kat ay nit yalla sallam dinaa leen ko seere fii xam nga waxkat buy wax di dem bokkut ak jaamukatub yàlla maa ngi seere suñ ndongo mbuub bu baax a baax a baax murit la boo xam ne ay waxam daa am fu mu may yóbbu suñ xaadim njaay kayaar tasuuf suñ jiili sàmbo dafa am loo xam bu la ko sëriñ bi defalee da xam ko boo ko sàmmee rek mu si loor Alioune Thioune fi ma ko nawee dëgg dëgg mooy ñim dajale fii ñooñu xaalis téyewu leen de télé bi day yàlla ndax dëgg yàlla moo tax mu dajale ñii ma la waxal fii ñu bokk am xel bokk gis-gis bokk di jëf bu amul woon ni mën sëriñ Tuubaa duñ fi mën a téye maa ngi ñaan ñëpp gudd fan jërëjëf jërëjëf Baye Sylla bëggati nañ si moom bu baax ah. di sant a baax sëñ Ablaye Diop moom moom faaw mu dellu si si jotaay bi wax dëgg yàlla ndax la lool di si jeex bu baax a baax nag kon euh, Serigne Cheikh Khadim Fall ni ñu ko waxee mm-hmm. di benn fan si weeru mai bisu bu maam Cheikh Ibrahima Fall dem na ba ëpp na Ndakaaru bis bi nee naa la journée nationale la mm-hmm. mu woon la lu ñuy xëyee la ba si ëllëg si si si si waxtu bu dellu see mm-hmm. stade Diop Marius Ndiaye bii lañ koy defee maanaam stade Demba Diop kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax Tidiane Cheikh Ibra yóbbu ñu see jàmm mhm. di ziar bu baax nag mhm. a wër mhm. moom Cheikh Ibra rek lay lay lay la bëgg soxna si kër ga soxna May sa Diop soxna Awa Diop ah, ah seetal lii rek sëñ euh, sëñ sëñ Ousmane Wade nekk si Cincinnati États-Unis day bàyyi xel émission bu baax euh, soxna Binta Sow jëwriñu Serigne Bassirou Baara duñ ko fàtte soxna Yacine Gueye ak soxna Awa Diawara ni ki sëñ Bàcci Ka di jëwriñ moom it euh, Touba Sénélec national duñ ko fàtte sëñ Ndeye soxna Ndeye Semu Sène ak soxna Fatou Sène duñu leen fàtte ak ca Espagne kon ñu ngi ziar mboolem mbokk yi rek waaye sunu maam meex aram kan ji nekk si kër ga jamono ji ñu ngi koy ziar bu baax a baax en tout cas di bàyyi xel bu baax a baax kon lu jëm si wàllu euh, euh, bisub Serigne Cheikh Khadim bi mm-hmm. nga xamante mooy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. yàlla ñu sunu borom yóbboo ko jàmm rek mm-hmm. euh, sëñ Mamour di ziar mboolem mbokk yi waa xiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim jërëjëf sëñ Ablaye Diop Bichri jërëjëf Baye Serigne Silla Baye Fall Euh, maa ngi beral nuyu akub ziar soxna Dieng Fall mu sëñ Abdourahim Fall ak soxna Awa Gueye mu soxna Astou Fall ñu ngi ziar baax soxna Xadi Mbàkke ñu ngi koy ziar baax soxna Baali sama ah, ñu ngi koy ziar bu baax a baax mhm. tubaarkalla xam naa mbokki taalib yëpp ñu ngi ciy bàyyi xel kon xam naa ñu def euh, bàyyi si la nga ñaanal